ñu lu ñu war jëriñ réew mi lu ñuy apporter réew mi pour son développement fii Sénégal moo woote àdduna bi yëpp sax la lii dal mais li nga gis comme lecture mooy que ni ñëpp xam nañ ni ànd booloo juboo déggoo mooy lii solution mooy réponse mooy solution ba tax na ñu ñëwoon wuy si ci loolu waxtaan wi ñu waxtaan ak président ci loolu la sukkandiku nan la ñuy fexe ba pandémie bi Sénégal mën ko affronté ba doon affronter ko de manière efficace loolu la ñu waxtaane du li nga wax kilifa na nga génnee ci biti mais li am solo mooy rafetlu nañu mesures yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko yaakaar nañu gëm nañu sax ni ça dans le bon sens c'est des bonnes mesures et su ñëpp taxawee juboo déggoo ànd yàlla mën nañ ci may ndam parce que looloo am solo parce que lii nga xam ni dafa dal àdduna bi yëpp ku nekk xam nga ni jombul kenn tànnul ku muy daal ku nekk lay daal donc fagarlu am taxawaayu mat am taxawaayu déggoo loolu rekk ñu ci mën jële moo tax félicité nañu gouvernement bi ci li mu def wax nañ ko suñu xalaat pour mu gën a efficace mais dañuy gërëm ak sant métitlu Sénégalais yi nga xam ni dal na leen félicité corps médical bi massawu diaspora bi nga xam ni ni mu koy vivre métti na engage engagé Sénégalais yëpp ñu xam ni jombul kenn te kenn mun ci rëcc mais suñu àndee rek yàlla mën nañ ci defal sutur. Merci euh, le bon sens. Ce sont